mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu man Papa Djibril Fall njiitalu coalition Papa Djibril Fall président may ñëw seq ak yenn waxtaan ci ndorteelu campagne électorale bi ñu nekk jëm ci tabb njiitu réew mu nekk jamono bu am solo waaye fii mu toll tey ak ci guute gi mu nekk ak njàqare bi nga xamante ni moom la sénégalais yi di dund ci biir réew mi ak ci bitim réew moom moo waral njuumte ëpp na cee am loolu moo tax ñu jàpp ne yaakaar bi ngeen am ci ñun ba boole ñu ci fukki nit ak juróom-ñeent yi nga xamante ni war nañoo dagaan baatu askan wi moom lañu bëgg ngeen mottali seen yéene ci 24 mars 2024 ngir ñu soppar ñu dundidu sénégalais yi dundalaat seen yaakaar rawatina ndaw ñi waaye dalal seen xel rawatina mag ñi jaarale ko ci njàng bi muy éducation jaarale ko ci sécurité muy kaaraange jaarale ko ci li nga xamante ni moom mooy wér-gu-yaram muy santé loolu yëpp tey sénégalais yëpp xam nañ ne jafe-jafe yu mag moom moo ci nekk bokk na ci it ci li nga xamante ni yitteel nañu lool te sabab sunu taxawaay tey mooy ndawi Sénégal ndax jafe-jafe yu métti yi nga xamante ni dund nañ ko rawatina ci at yi nga xamante ni moom la ñu romb tey jii géeju Sénégal lu ci ëpp ay sëg la ngir ay doomu Sénégal ay ndaw ñoom ñoo doon wuti lu ñu sàmme seen ngor ak seen diine daal di faatu ci géej gi loolu nag mënatul nekk loolu dañuy taxaw temm ngir saafara ko à partir de 2024 ni ñu koy defee ci xam-xam lay tegu ak ci yitte ju mag sëkk ak yërmande jëm ci askan bi loolu moom moom waral bi ñu jógee taxaw ñu daal di ànd ak ay boroom xam-xam yu mucc ayib ci biir réew mi ak ci bitim réew ànd ak mandute ànd ak bëgg ànd ak taxawaay daal di jël li nga xamante ni moom mooy saafara jafe-jafe askan wi daal di koy dëxëñ ci téere bii nga xamante ni moom la ñu yor loolu nag dafay ànd ak yitte joo xamante ni ju mat sëkk lay doon ñu fas yéene cee ànd ak sénégalais yi ngir lépp loo xamante ni Sénégal moom na ko muy alalam ñu fas yéene koo yor ci loxo yu set wecc waaye fas yéene koo yor ci ak mandute gu mat sëkk alal mosu fee ñàkk am na sax lu fi feeñ jamono ji muy ay mbëll yu am solo ci wàllu gaz ak pétrole waaye am na lu fi jiitu woon ñu saax-saaxee ko kon li nga xamante ni moom moo fi feeñ tey dafa laaj jikko yu rafet dafa laaj loxo yu set loolu nag coalition Papa Djibril Fall président fas yéene cee taxaw taxawaay bu mucc ay ci biir campagne électorale bi ñu jëm dinañu ñëw daje ak yéen ngir ngeen gunge ñu ñu jot ci réew mi soppi li nga xamante ni moom mooy dundinu askan bi jërë ngeen jëf